mbind mu sell mi nee na ci jëf ya saar fukk aaya fukk benn ba aaya fukk juróom aaya fanweer ak ñeent ak aaya fanweer juróom aaya ñeent fukk ñeent ak aaya ñeent fukk juróom mu xool asamaan si ubbiku gis lu mel ni sër bu mag bu ñu tey ci ñeenti laf yor ko mu jëm suuf boroom tànk yépp ñu nga ca ak yiiraam ci suuf ak picc asamaan te baat ne ko jógal Pierre rey te lekk waaye Pierre tontu ko mukk borom bi ndaxte musuma lekk dara lu daganul mbaalu aram waaye baat bi wax ak moom ñaareelu yoon ne ko lu yàlla selal bu ko araamal noonu Pierre jël kàddu ga ne leen ci dëgg gis naa ne yàlla du gënale waaye ci xeet yépp ku ko ragal tey def lu jub moom la nangu bi Pierre di wax loolu xel mu sel mi wàcc ci kaw ñépp ñiy déglu kàddu ga yawut yi gëm yépp nag ñi ànd ak Pierre daldi waaru ci li yàlla tur xel mu sel mi mu mayee ci ñu dul yawut itam